jërëgeen ngeen jëf bokk yi nuy seetaan ci 2STV ci émission na woon nuy sant yàlla sunu boroom bu baax julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant sunu ñaari waajur di am mbégte mu rëy di jàkkaarloo ak benn artiste boo xam ni bii kenn dootu ko laajte ci biir Sénégal ak bitim réew waaye ñu di ko laaj ci nit koo xam ni kii fekk àddina yi dox senegal di dox jëfam di feeñ nga xam ñi di ko dégg kooku mooy kan mooy Abdoulaye Mbuub di woykatu wolof boo xam ne mi ngi judd ci atum 1939 mi ngi génn àddina 1975 yàlla sunu borom dogal lu tolloog ñeent fukki at yu topp amee tey kan ak mooy répété yëpp maa ngi toog. nga toog di seetaan. waaw la. ma toog di seetaan biñ demee ba ay booru une heure na kuy sa papa ko sama papa alaaji Cheikh Seck la tudd tribunal lay liggéeyee alkaati la. mooy garder bureau président kebaa mbay Kéba mbay mi jur Abdou Mbaye ñoom Abdou mbay ancien premier ministre bu Sénégal bii mhm. ndax Kéba mbay boobu sama papa bu tudde na ko doom muy Kéba Seck mii di way est waaw ah waaw mu ma léegi mu ne ma danga ma ne démb sa papa bëggul nga woy ba ne ko waaw mu ne ma kaañ dem ki sa papa ma ne ko ah mu ne ma kaañ dem ki sa papa boobu man man maa ngi ragal ragal ragal ragal ragal mu génn te sama loxo jël taxi ñu jubali tribunal biñ demee ñu fekk sama pàppa ci bureau bi mu toog mu waxtaan ak moom. nekk sa doom ji day maa ko gisal sama bopp am yëg-yëg ci moom waaye dafa ne ma yow bugguloo mu woy danga koy tere woy ma doon ñaan daal ndax mën naa am ndigal au moins nga may ma may ànd ak moom ba keroog nga koy nongul muy woy loolu la hmm. sa papa ne ko ah kon nangul naa la loolu comme jaral na la yegg si ba ba fii. ndeysaan. waaw léegi nag loolu mooy phase one. mooy phase bu njëkk bi. waaw fi nga jaar Abdoulaye. waaw ba yàlla dogal nga tàbbi ci la. léegi nag may commencé nag di dem këram chaque une heure daf ma exiger woon nag chaque une naa ko fekk këram te foo ko fekk day ataaya. waaw te ataayaam kenn du ko xiimal. mooy xiimal boppam. maa la wax loolu. gis naa ci moom tam ku bëggoon limon la. limon. waaw. añ moom. Hmm. limon yi dañ ko koy tegal nii bu dee ceebu jën la da koy limon ba ba doyal mais gis naa ne tam ataaya ak mburoog beurre moo doon lekkam bu ëpp. bi mu gënoon bëgg daal waaw. buñ toggaan ni añ këram ba ci tut lay lekk mais ataaya mm-hmm. ak mburoog bër mm-hmm. moo ko gën a lépp lu mu bëgg ci wàllu woy lan nga gën a remarqué ci Abdoulaye Mbuub bi nga xamante ni dem nga ba ànd ak moom ba ngeen dëgër ak euh, seen daj bu njëkk yéeg ci seen fan la woon fexe ba sama papa ne ko baax na mais ma ma xalaat waaye jot naa la ko. Mhm. comme ni ma ko expliqué. Mhm. fi mu ma fi mu ma jëkk a yóbbu ci kaw seen ndar la. ndar Saint-Louis. lu fa xewoon. na xel mu xóotee ak ni mu déggee wolof mësuta fent bañ ne anono ah, ndoo rek ngay dégg hmm? te bari na ci waa ensemble instrumental bi yëpp moo leen daan bindal li ñuy woy barke sol lay oh. bari na ci ensemble instrumental surtout nag ci jigéen ñi ñoo xam ne Ablaye Mboup moo leen daan bindal te kenn du ko xam hmm? fekk lan fa ba tàyyi kay ñuy toog nii waaw ah, loolu moom du lu may daafantalo maa ko gis laay nu mu melen ci wàllu digganteem ak nguur état comme ni musiciens yi dem tey ñii bugg a defi politique ñii bugg a nekk lii ndax laay mas nga sentir fenn fu mu duggee ci affaire politique wala bu dugg ci affaire non non non masul toppatoo loolu mhm. laay mbuub daal benn nit la bu yàlla sàkkoon daal mhm. mu am vision ci àddunaam moom ni ni ni ni la gisee mm-hmm. gis nga li tax mu yóbbu ma mm-hmm. bi ko waa baobab ne mm-hmm. li ngay absenté bari na yaa ngi Sorano yaa ngi ci panaal dañuy jouer soirée bu partie folklore yi ñëwee personne pour chanter dañu koy tëb te baobab dañ daan liggéey ci programme mm-hmm. salsa tak turu ndang salsa jerk rhythm and blues Moussa Kane la tumbiste moo daan woy jerk yi boobu temps jerk dafa xew mm-hmm. Bala Sidibé moo daan woy soose ak salsa yi man nag roj bi bi ma daan joué man mm-hmm. maa doon le benjamin lañ ma daan woyee man ak Muntaga les Benjamin di booba mhm. man dama daan woy folklore mhm. di tëgg tembarees yow waaw tàkk tuuru ndànk tukku tàkk tukku tàkk boo ma la ko tëggalee nga xam ne <laughs> maa ko man nga boole ñaar yi nga waaw waaw dañ may tegal micro nii jox ma tembalees yi may woy di tëgg sama tembalees léegi nag Ablaye mbub indi la baaw baab laay ne leen bon comme je sant trop. Uh-huh. ok dinaa fi indi benn woykat. laay jële ma Estar Band yóbbu ma Baobab. nga ñëw Baobab. waaw taxaw place waaw maanaam bokk naa ci les chanteurs folkloriques. Mm-hmm. mais su ma moom bu fa nekkatul kenn du ko sentir. Mm-hmm. moom boobu politique la def pour. Mm-hmm. bañ a nekk en pour bañ a nekk en conflit. ak waa orchestre ba Baobab. Euh, dañuy waxtaan ak kenn ci. ñi nekkoon baobab ci mag ñi ku mel ni benn salu rek laan laay wax. Latfi Benjelloun. mu ni ma premier enregistrement laay baobab. waaw ci tele ci RTS. waaw Jules Sagna moo ko def. nee na bés boobu premier boobu. ci lañ la jëkkateeg bët nga ànd ak laay ne fekk am na lu ñu discuter ak laay ci diw baat bi dafa diis kii baatam dafa wàcc kon fan la ñuy jëlee koo xam ni baatam dana nekk au niveau mu ne leen danaa régler problème boobu nee na ñu xëy rek seen laay muy ñëw. am ku topp ci ginnaawam ñu ñun waaw kii laay àndal kan la loolu naka la demee woon. waaw dafa ne ma bu subaa dañuy enregistré RTS da fexe ba 10 heures du matin mu fekk la ci kër gi ma ma daal di exécuté euh, bi ma demee laa gis euh, Jules Sagna. Mhm. moo doon def enregistrement bi. Mhm. amoon na tam euh, loo kayaa Mhm, mhm. ba benn homme mhm, ku bëggoon musique moom tam maa ngi fàttaliku moom la suñu kilifa yi moomoon baaw baaw Alaaji Ousmane Diagne. su sosi bu sosi si bi. ak ak Adrien Senghor. Uh-huh. ministre de la République. ñoo moomoon Baobab. moom orchestre Baobab. ah. waaw ngeen war a enregistré nag RTS. léegi biñ ci joué nag ba mu comprendre matériel bi nag. Mhm. ba xaw ci rodé. Mhm. le Jules Sagna programmé. Mhm. enregistrement RTS. muy boobu moo indi album Baobab 75. 75 parce que cinq albums la yoo xam ne Jules Sagna ko enregistré ci biir cabine RTS defe naa pendant deux jours. su ma juumul tam naa pendant. benn journée la léegi nag yeneen enregistrement yi ñu ngi ko àggalee euh, Diender. mooy fi ñuy woytee ji Kilimanjaro. waaw. maa ngi rappelé wu sama papa Alaaji Doudou Ndiaye Rose moom tam yàlla na ko yàlla yërëm. amiin. am na benn morceau bu ñu ko boole mu ñëw indi ay sabaram moom itam pour bokk ci enregistrement Baobab quinze dama xamul nag ci ban la ci morceau yi. boobu daal mooy bi nga jëkk bi bi ngeen njëkk a def laay yóbbu la keroog la naka ngeen naka ngeen def ak nu la laay dugale ci ban anam la la dugale keroog. dama ñëw rek mu ne ba ba jox leen ko micro. ñu jox la micro. waaw ñu ba comme damaa ndawoon trop trop ñu tegal ma micro ama tay waaw tayu gémmiñ waaw ñu essayé ok baax na. mu ne ma eh na nga nag pare na ci. pare na ci waaw. Ah. boo déglu enregistrement yooyu du laay boobu rek a way de alaaj Ndiouga Dieng dem si àll si way na mm-hmm. boo déglee uh, am na woyam muy woy uh, addunaa ko mën a njuuy woy laa mm-hmm. baatu xale ca suuf muy ci kaw mu jollil ko man laa boo déggee lay mbub Lat Joor Lamine Aïda Bawouri moom tamit yam fa woyoon. baat bu ndaw boobu bu sew boobu nga dégg muy muy wax muy woy man la. yow la